maa ngi nuyu mbokk yi ñu fi fekk yëpp di jiital ci nuyo bi suñu jigéen suñu xarit soxna Lalla Aïcha Fall gor yu baax yi ñu àndal ko ci gis li yitteem mooy fexe mobiliser parrainer pour suñu candidat Amadou Ba loolu nag buñ koy def di ci sonn li ñu bëgg li ñu yéene mooy Sénégal bañ a nekk ci ay loxo aventurier ci ay loxo saay-saay yoo xam ne xamuñu fu ñu jëm ñoo xam ne xamuñu li ñu bëgg suñu réew dafa mérité ñu teg ko ci ay loxo yu set loxo yu xam àddina loxo yu dal loxo yu am teggin waaye tamit loxo yu mën liggéey politique dafa laaj animation ñun ñi dëkk ndakaaru mënuñu am candidat bu juddoo ndakaaru màggee ndakaaru nekk waa ndakaaru ba pare ñuy toog di des ginnaaw looloo waral man ak suñu xarit yii bokk Benno Bokk Yaakaar ñuy wër commune yëpp di mobiliser nit ñi di def animation di seeti kilifa yi di seeti mag ñi di seeti ndaw ñi ngir 25 février 2024 li président Macky Sall doon def ci Sénégal ñu mën ko continuer di yeggali yaakaar di yeggali infrastructure yi di yërëm jigéen ñi di yërëm ndaw ñi di taxawu ndaw ñi te Sénégal continuer am jàmm continuer dal loolu nag woo nañ leen ci yéen ñëpp ngeen dajale seen parrainage ñu yóbbul ko premier ministre Amadou Ba donc ñu leen di gërëm di leen sant di leen sant bu baax a baax ci lii nga xam ne moom ngeen xewalee tey def ko ci defin bu rafet ma sant commune Dakar yëpp waa Bennoo Bokk Yaakaar yëpp gis nga leen ñoom ñëpp ñu ngi nii taxaw ku ci ne jóge sa commune ñuy jàppale responsable yi seen i biir commune ngir ñu mobiliser ngir ñu liggéey ngir Amadou Ba am ndam Benno Bokk Yaakaar am ndam PSE continuer président Macky am ndam jërëjëf.